Euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, sorti Bougane bi jouru tabaski dama dama gis nag bokkuñu bokk ci ñoom ah euh, ñoom ñoom Ibrahima Khalilullah di wax ne non waru ko woon def ci lio bi mu ko defee nangam nàngam nangam ma ne mais jouru tabaski la ko defee masaalikul jinaan la ko defee mu wax lan lu yàlla wax saa à il faut ñu wax ma léegi jouru tabaski wax wax wax kàddu yàlla dafay xaraam wala ñu wax ma masaaliku jinaan wax fa kàddu yàlla dafa xaraam lan la wax fen moo ko gënal sàcc ba pare moom la wax sax gënal boppam mais yàlla sax looloo ko gënal maanaam bugaan li mu wax du moom de yàlla ci boppam sàcc ko gënal fen ci misaal yu baree bari damay ñëw ci ci ci ci ci ci ci ci fond bi li indi coow li parce que loolu la kàddu boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que dëkku ngëm la ñu nekk moo tax ma bëgg ñu waxaale loolu may nuyu may nuyu Imam Ndiaye ak euh, abbé Joël fa fële ca Ziguinchor ma leen di nuyu bu baaxa baax parce que comme dëkku ngëm lañ nekk te fii Sénégal dañoo gaaw dañoo jàpp ne dem caaroy gii euh, la ñu yemale ak yonent bi laay roy loo wax ñu ne yonent bi laay rew jàpp ne di roy roy yonent bi daal moom dem caaroy daal ñoo yam donc moo tax ma bëgg ñu waxtaane foofu ci kiñ jàpp ne moom moom lay roy seen leader yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci li mu daan ëpp lu muy ñaan chaque guddi wala fu mu toog xam nga ne baat boobu olof yi naan xiif kenn du ko tuddee doom baat boobu olof yi dañ koy wax olof yi ñu ko de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo daan wax yàlla chaque soir nag ma musal ci xiif ndax mooy li nga xam ne kenn du ko tuddee doom bu ci daan pare xam nga lañ la ci daan teg parce que da nga daan wax ñaar yii dee ma ci musal ak sama xeet bu daan pare ci xiif rek fen la ciy teg ne ko ak fen ñu bëri daan ko laaj lu tax nga leen di dendale mu ne parce que fen bokk na ci liy ŋacc doomu aadama ba mu jeex comme xiif nu muy def nit moo tax mu ci daan muslu chaque soir da ci daan muslu beneen bi ci ci ci ci fen ba léegi ñu baal ma ah ci kàddu bi parce que il faut ma waxee ko noonu comme dañuy jàngale comme réewu ngëm lañ nekk te yonente bi la ñuy roy moo tax ma koy waxee noonu mu leer beneen bi da daan wax ne lii nga xamante ne nii moom mooy fen bokk na ci ku koy jëfe ci kaw suuf yàlla da daan woo malaaka yi ba ñu ñëw mu ne leen diw male ci misaal politicien nangam bu ngeen ñëwatee ci kaw di indi dossier am wala di wax turam bu leen wala di indi ay jëfam bu leen wax turam dee leen ko duppee fenkat bi ndax soxlaatuma digg turam ndax jéppi ko ci fen gi mu nekkee ci kaw suuf pour wan leen fen nu mu garaawee ñu dem ba ci biir mu wax ne sax ñiy wax dëgg naw naa leen naw goo xam ne dee leen ma bàkkalee waxkatu dëgg bi léegi buggaan lii ma leen wax nii moom la indi biir masaalik ji na zuuru tabaski waa lu ci am waxu yàlla où est le ci moom ci boppam mu tànn ne moom sàcc ko gënal nekk fenkat waa léegi nag qui sa sent morveux se mouche lu tax wax ji ñu jël ko ñun waa Sénégal yëpp am kuñ ko féetale ba ñi bokk ak pas ñi bokk Pastef sax jël wax ji am kuñ ko féetale foofu la problème bi nekk nag du waxu bugaan bi maanaam lu tax bugaan wax loolu ñun ñëpp ca ngoon nga bi ñuy lakk yàpp ñu wax ji am kuñ ko tottal am kuñ ko féetale luy problème bi lu tax kooku pour quoi pas man pour pourquoi pas Idrissa Seck pourquoi pas Macky Sall pourquoi pas Karim Wade lu tax rek ñu jël ko am kuñ ko féetale ba waa Pastef yëpp jóg di défendre affaire bi ñenn ñi di kaas loolooy problème bi nag loolu lañ war a lijjanti ma dégg sànq euh, ba tey Ibrahima Khalilullah mu wax ne Ousmane du tontonte Ibrahima keroog li xew Grand Théâtre su fekkee déglu nga ko première tontonte bi bi ma gën a rusloo mooy l'histoire du tappi tapis en tant que premier ministre nga woo say ndaw pour wan la tontante yi mu nekk rek ñëw naan tapis bi de bu ma ci doxee mooy bon seen xol waaye dama ciy dox yaakaar naa doxaatu ci nag pour rek bu ñu jëlaatee waxu Bougane yi chaque jour mu wax ñu bu ñu vérifier après wax ja am da doon wax da ciy dox par force te loolooy bon xolu nit ñi di tontante mais yaakaar naa démb ak bërki démb bi ñu gisaatee image doxul ci tapis bi mu nekkaat ay wax yu waroo nekkaat ay tontante ci relation ak Jomaay loolu du tontante parce que ay point d' interrogation la sénégalais yi doon posé ci gëj leen a gis ci gëj leen a gis ñu ànd bi jomaa di def visite ci xalif généraux yi ak yeneen ak yeneen ñu gëj leen a gis ñu ànd loolu ba mu génne lu mu ci tontante wax bu bambin ay ki koy jural ki koy juraat ak ki koy juraat en tant que premier ministre mu nekk ay tontonte yoo xamante ne ni amul benn sens li mu wax média yi ci discours bi nee naa mënoon na wax ba daaneel sur l'affaire ku wax lu dul dëgg day fekk si waat waxu yàlla bi ba léegi mais nañ ko teg ay duma muy man ku nekk des médias ku nekk groupe futur média ku nekk la soleil ku nekk RTS képp way taskatu xabaar bu mu mënti doon mais àgg nag ba ci waxaat leen ko xool affaireu xale yooyu ci koo xamante ne ni ñun suñu kilifa nga yaa ñu bokk njaboote loolu moo tax ñuy wax ne na dem ci l'essentiel en tout cas su ma su ma dégloo dam dammel loolu laa jàpp ne moo tax nay muy wax na dem ci l'essentiel maintenant le bilan bi nga fiy def nii bu ñu ñëwee ci wàllu bes bi parce que ci kanam tuuti dinañ ci waxtaan. mais ci 100 jours ak bilan boo fi mënti def ak bilan boo fi mënti def ak lu mu mënti extraordinaire extraordinaire ce qui est dangereux li nga wax sànq naan projet bi mu ngi ci bopp. ñu delluwaat ci waxi yàlla ba tey yàlla moo ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa bu ngeen nasee nocc ak mbir ba pare bëgg koo jëmmal. ngir ngeen atteindre objectif ba ngal la bind leen ko maanaam bind projet du nit ñee ko xalaat de lépp looy xalaat ci àdduna ci gouvernement ca yàlla la commencé yàlla njëkk am gouvernement jël Jibril def ko premier ministre mu ne lu ngeen xalaat nas ko nocc ko waxtaane leen ko bu ngeen ko waxtaanee ba pare bind leen ko ngir mën a am jëmm ju koy mu yóbbu ca muccëtal ngir atteindre objectif su ma ko waxee ci tubaab waaye yéen tey ngeen digoon ñu ne loolu amoon ngeen ko ba bind ko demaat ba ci biir jox ñu décembre ñëwaat bërki démb grand at jox ñu septembre tey yow nga ñëw toog fi naan mu ngi ci xel yi luñ ko fay doyee nañ ko bind jénne ko luñ fi mënti def ak lu mu garaaw garaaw suñu xamul yoon wi dafay mel ni luy naax saay pour ñu dimbali seen bopp lii ngay wax nii mu am solo nañ ñu wax ñoom fu ñu jëm mu gaaw lagg dem assemblée def déclaration de politique générale am xam fan la réew mi jëm mënuñu nekk ci tato ne ku nekk di wax euh, par gauche euh, kii di wax gauche kii di wax droite bu ñu jógee mu dajale nit ñi grand théâtre gaaruwaale ñiy dàggasanteeg ñiy xas ñi après ñu ñu tàcc ko yuuxoo ko bon comme yéen nag lu mu def baax na lu mu def c'est extraordinaire ñu nag yéen mënuñoo bokk gis-gis problème bi loolu dégg nga la maanaam yéen seen position man nangul naa leen mooy li li woykat yi naan bëgg ba gumba loolu day am jamono ju nekk day am nit goo xamante ne dafay wàcc ci ab askan ñu waxaat waxu yàlla ba tey yàlla day tànn ci jamono ju ne benn jëm jël ko dugal ko ci xol yi xoolal baax na ak bon na mu def ko ci xol yi am na xam-xam ak amu ko mu def ko ci xol yi am naa am amul mu def ko ci xol yi am na diine ak amul diine mu def ko ci xol yi moo tax ñuy jékki-jékki ci jamono bëgg Maradona jékki-jékki mu yóbbu Maradona indi Messi ñu jékki-jékki mu indi Michael Jackson jékki-jékki indi Tupac jékki-jékki indil ñu Youssou Ndour wala Wally Seck jékki-jékki mu indil ñu Ousmane Sonko ça ne veut pas dire ne ñëpp wala moo gën baax ñëpp wala moo jàng gën a jàng ñëpp wala moo gën a loolu mbiru sunu borom la mais nag ci ànd boobu nag nañ ci boole ànd ak suñu xel di analyser mbir yi la le pour et le contre ak lu ñu ko mënti bëgg waaw euh, Ahmed